Bassirou Diomaye Faye cet homme s'appelle Ousmane Sonko kon ñu jox ko mu mën wax ak sénégalais yi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

chaque patriote laay wax nag chaque patriote saa su xëyee li war a doon yitteem mooy est-ce que ñi ñu dégg fa ñu jëmale réew mi méngoo ak projet bi nga xam ne moom la ñu waxante woon bu amul it woo leen ñu ba ñu dégg leen ngeen ne waxante wu nii yéen a ngi jàpp noonu la ñuy defaree réew noonu la yàggee ci réew ba nga xam ne ay génération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 wala moom ay jox nit dañ koy fal ngir gis-gisam ci réew bi ngir jubam ak ngir bëgg réewam bu doon nit dañ koy fal ci mbokkoo wóor na ci ku xool mbokk ya kon xam ngeen ni Fatick du mel ngeen ni mu nele mu mel kon xam ngeen ni Jiwaalo du mel ni mu mel waaye kon xam ngeen ni Kébémer du mel ni mu mel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

Ziguinchor bee nga xam ne maa doonoon maire ba ñetti at a ngi nii lépp la ñu téyewoon bateau ba du fa dem aéroport ba ñu arrêté arrêté ko pro électrification rurale ñu arrêté ko waaw xanaa nu tuuti tuuti am na juróom nit Ziguinchor yoo xam ne boo teroon nañu nguur gi bi kon même maire bu àndul ak ñun lay ak xam di ak waa Fatick dinañ leen ko jox ba mu mat sëkk noonu la démocratie di doxee moo tax ñun dañoo bëgg politique Sénégal yóbbu ko beneen niveau ci politique bi ñu nekkee woon bi ñu bi nag ba léegi yi nga xam ne ñu toppoon ci caravane bi ña ngi ma topp naan tali bi tali bi tali bi nee tali bi baaxul man dama am dama xaw a génnew xam ngeen ndax lan. lan tali kër yi lañ defar woon tali yi baaxul. waaye dafa mel ni benn tali moo am Fatick finalement. ci loo xam ne capitale régionale la. kon problème am na. mbokk yi ci vision 2050 bi présenté dañu am ambition ci pôle fii tey la dugg ci pôle centre.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 motax len lañ lay laay ci lu gatt mbiru mbay dina ko wax fuma ma bu soobee yalla kawla mbiru mbirum ndox mi dina ko wax fuma ma boru fujul waye fi fii lima fi wax ñaari ndaw la dañ leen wax ni ci projet bi dañoo bëgg fatik doon une métropole régionale à l'horizon 2050 Après des métropoles yi dañ koo segmenté dafa les métropoles d'équilibre loolu mooy une très grande ville. Dakar, da koy de côté moom mégapole la léegi waaye dañ il faut des métropoles d'équilibre am des métropoles régionales am des métropoles secondaires fatigue, dañu ne dañoo bëgg mu nekk une métropole régionale loolu nag liggéey bu bëri la fatigue ndax Fatick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

au mois de mars mois de septembre wala mois de novembre ngeen ne xañ ngeen ko assemblée nationale. ndax bi mu toogee léegi def nañu war a tax ngeen jéppi ko yéen. ndax bi mu toogee léegi la may def seen xel wala dalul seen xel. kon le 17 novembre ñii fi nekk naan opposition la ngeen xam ne ni ñoo opposition te ñoom ñëpp ñam nañ leen.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 ñooñu nag mais nag may gal rek gis nga ñaari catégorie yooyu koo ci jox jox benn député sax c'est un député de trop moo tax le 17 novembre massivement Fatigue va voter pour la liste Pastef pour donner une majorité écrasante comportant Le président Bassirou Diomaye Faye ñu ci liggéey bi bu boobaa nag contrat bi ñu diggante yéen 2029 2029 bii bu ngeen soreetu ñeenti at ak genn ci des bu ngeen ñu joxee tous les leviers du pouvoir 2019 dinañ dajawaat ngeen nañu ah liggéey 2029 dinañ dajawaat ngeen nañu ah, liggéey ngeen wala liggéeyu ngeen foofu la bilan bi di ñu ngi leen di di leen sant mi ngi noonu tey jii seeni député ñi nii dama bëgg ngeen xam ne seeni député fraternelle André, ici à Fatigue. En pleine journée, 14 h plus de 35 degrés à l'ombre. Et les jeunes sont sortis battre le Magadam avec le président Ousmane Sonko. là. Madrid.